ginnaaw bu mu ñàkkee euh, soxnam euh, di Momy Gueye euh, Dany ñenn ñi naan ko Momy Seck boroom këram di Bougane Gueye Dany njiitul gëm sa bopp nekk itam directeur général bu groupe des médias moom nag moom moo yëkkatee ay kaddu def ko ci statut ngir rek xamle détails yu topp ci génnu addunaam soxnaam sile nga xam ne moom moo nekkoon directrice su des médias di Momy Gueye Bougane Gueye nag ci statut boobu mu ngi ne nañu julli te ñaanal ñaanal soxnaam sile di moomi levée du corps bi dañ ko amal niki tey ci arxemes ci bu 16h30 jotee euh, ca jàkk bu Ouest Foire enterment bi euh, ca 17h30 la ñu koy amal euh, ci Yoff Bougane Gueye Dany moom moo def boobu lépp statut nag mu ne lu ñel wàllum condoléances yi dañu ko rek amalee ca cité kër góor gi maanaam lépp loo xam ne rek moom moo jëm ci boobu lépp cérémonie dañ ko amalee ca cité kër góor gi Bougane Gueye Dany nag yeyul yàbbi ci benn détail naam bu fekkee fekkee ne sax nit ñaa ngi wax a ci lu gëm ci génnug àdduna ak soxnaam sile nakar ak tiis bi mu am moom la famille euh, Bougane Gueye Dany yëpp daal di am ba tax na fu nekk nit nga fay rekk def ab statut wala ay publication euh, ngir métit lu métit bi nga xam te ne ni moom moo dal ci seen kaw waaye tam di def ay témoignage ci soxna si nga xam ne moo fi bàyyeekoo di soxna moom mi Seck Dany ci baax gi mu baaxoon la biir soutenir jëkkëram te itam nekkoon nit boo xam ne kenn mësu ko dégg ci ay euh, détails jamono ji moom Bougane Gueye Dany nag am na lu ko metti lool loolu la dal di le ba tax na Sénégal itam euh, mu ngi ñaan ñu dal di ànd ak moom bokk ak moom naqar boobule waaye itam te ñaanal soxnam ñu ko koy jaalewaat bu baax a baax rédaction bu Seneweb euh, tey wax way leen di ànd ak ñun ci suñu ay programme ngir ngeen mën di ñu teewlu saa su nekk jërë ngeen jëf